pourquoi ngeen eh, soustraire Habib Sy ci ci ci ci recours yi. Habib Sy xam nga aussi ñoom ñëpp ñoo bokk. waaw eh, coalition bi leen meññ. waaw ba tey xam nga mën nga bokk coalition te bokkuñu aussi ñu leen ñu leen ñu leen eh, Habib Sy ñu ko ñu ko ñu porté parrainage am ay député la dafa naa dafa amee partem walla amee mouvement et puis xam nga dossier yi. yoon mayuñu dañuy njort dañuy rafet njort mbaa ñu ñaaw njort waaye yoon ni mu tëdd loolu aussi war nañ ci mën a waxtaanaat ëllëg man mayuma ma dem xool dossier bu kaneen dama koy njort rek par exemple dossier bi Habib Sy déposé yoon mayuma ma dem ubbi xool lu nekk ci biir te pourtant yoon moo ma ne soo soo d'accordul am nga réclamation naka nga mën a defee réclamation te dossier bi gisuloo ko donc da ngay jort njortu nag dangay am na ñu rafet njort am na ñu ñaaw njort man dama bokk ci ñu ñaaw njort ci politique ndax comme ni ñu koy waxee doomu kéwél su ñaawul njort ci mbaxal lay mujje donc damay ñaaw njort ñaaw naa njort ne euh, lii rafet naa njort ci Habib ne Habib euh, xam naa ko euh, donte ne dafa nekk ci benn mouvement boo xam ne bi jàpp naa ne mouvement bi mouvement bi mu bokkoon yeewi askan wi Habib si fa la nekkoon Khalifa Sall fa la nekkoon dañ ci bokkoon Khalifa Sall pour man c'est un républicain donte ne ma ci bokkuma ci parti bokkuma ci coalition Habib Sy maa moom ñoo bokkoon classe di jàng bokk nekk ci gouvernement dont ne tey ci politique dafa boom fu mu bokk mais man boolewuma ko ci extrémiste yi d'accord donc yooyu yëpp man sama wàllu bopp laay wax fu mu nekk waxaguma sama sama coalition sama man ni ma gisee àdduna ak ni ma gisee nit ñi la donc ni ngay ni ngay ni ngay préparer woo sa riposte ak sa xeex ak diw bokkul ak ni ngay xeexee ak diw donc loolu yëpp euh, maintenant nag politique su jotee ñu war a ñu war a toog nag xeex xeex moom xeex la rek su jotee nag moom euh, naka lañ koy waxee bëgguma euh, wax wax ju tegginuwul waaye dóorante su jotee dañuy dóorante nag moom amul benn problème Habib si sama xarit la sama doomu ndey la waaye suñu daje dañuy xeex